salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di baal ñëpp àq di baal ñëpp ak comme que dañoo jógee ci julli gi te liñ wax rek àq dafa sew ñu ngi jégalu ñëpp ndax ñëpp xam nañ ne yor micro dafa xaw a métti parfois tamit ñu def ay nga xamante ni moom mooy ay toj-toj kon ni ko gars yi di waxee rek ñu ngi jégalu ñëpp. tey nag ñu ngi fii ci arène nationale euh, Fallou Ndiaye njaay production woo ñu mu nekk combat boo xamante ni nag euh, muy le 24 juillet Fallou Ndiaye di ci tëj ay saison am mu euh, mu indi affiche yoo xamante ni affiche dooy doy ku ci mel ni ki nga xamante ni moom mooy Dame ak Tonnerre ak ki nga xamante ne moom mooy Alioune Sèye Junior Mor Kankan Bekay Nokia Petit Lo Sokh ak yeneen combat yi nga xamante ne moom lañ toftal tey nag nekk benn face à face boo ni mën nañu wax ni gannaaw ba ñu defee seen i nuyoo bi mooy première face to face boo xamante ni am nañ ko génn nañ ko euh, li nga xamante ni moom mooy ci arène national tey nag du ma ci wéet ma ànd ceeg ki xamante ni mooy suma confrère muy Mour Anta mais Modou Anta laata loolu dañ lay bàyyi yow tamit nga ñu ngi lay soxna Fatma ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu suñ mbokk internet di ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp di nuyu suñ mbokk presse yi ku si mel ni Baye Jili ñoom Maas gaa yëpp ñi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bal ak di leen balu ak comme niñ ko waxee rek boo jógee ci événement comme ak dafa sew te yaakaar naa ne chaque jour ñoo bokk sur le terrain wax dëgg yàlla jot nañu balonte ak di ñaan yàlla nañu yàlla boole jéggal bu ko defee yàlla def balaa déwén nag célibataire yi am jabar ñoom jibi ñoom jiili ñoom ñoom ñoom ñoom Babacar ñëpp rek ñoom nabi gaa yëpp am soxna bu ko defee Kalsu Boy moom mooy loolu di leen siyaar bu baax comme ni nga ko waxee rek le 24 juillet yaakaar naa ne journée la boo xamante bi ni ku gis na Ndiaye production moo tëgg rek da ngay <laughs> ñaar nga yor ñett ñett day ëpp maas le 24 juillet nag Fallou njaay moo woote comme ni mu daan defee rek arène nationale yaakaar naa ne miin na ko wala bokk na ci ñi nga xamante bi nii boo ko nommewul numéro un di nga ko nommé numéro deux comme ni mu ko defee woon stade Iba Mar fii nag yaakaar naa ne Fallou Ndiaye yàgg na koo yëngal yàgg na fee def li nga xam mooy affiche yoo xamante bi ni am na solo ba tey mu delluwaat dellu siwaat ci affiche yoo xamante bi nii bu la andil rek presque mat na grand combat Fatma comme naaj bi dafa tàng li nga xamante bi ni mooy programme bi rek bu ko defee ñu wëyal uh-huh. uh, Mouranta comme que dafa am combat boo xamante ne muy tonnerre ak ki nga xamante ne moom mooy Dame Sène daa jël beneen paquet daa jël beneen paquet cey loolu borom borom xam nga waa jàmbaar dañoo xew mm-hmm. macha allah ba pare Tonnerre nekk koo xamante ni dafa génn ci la Pythagore. waaw duggaat ci ki nga xamante ni moom mooy raq ji. miin na parcelle miin na parcelle. Mhm. léegi nag dañuy ñëw ci combat boobu bien vrai que ñëpp mhm. te ñoom daa am fu yeneen yitte yu war a dox. Mhm. ñu dugal leen Tonnerre ak Dame Sène dañuy a génn indi ki nga xamante ne moom mooy Dame Sène beneen paquet. ñu woon ba nga daa ji woon dafa jeex loolu nga waxoon Dame Kaye ni. waaw la ilaha illallah xale baa ngi nii borom jàmbaar ah. borom top cinq borom borom la. top 5 maninam la jàkkaarloo caméraman yi. Dame Sène mooy borom top jàppee Boy Ndiaye. waaye ba mu jàppee Baye Ndiaga. ndaanaan la yàgg naa dugal mbër top 5 ba mu jàppee Ziza. Ah. kii ndaanaan la wool keneen. waaw dañuy wax ci xam ne dafa pare moo tax xaaru sax nga tudd turam. Ah, borom gauche droite yaa ngi noonu doo dem Bercy duma ma dem Bercy dégg nga lool. doo dem Bercy waaw xam nga lool. laay parcelle la ko defoon Yékini Junior ku daan dem Bercy ah. dóoral ma dóor Yékini Junior ñu ngi lay masa bu baax door ba mu daanu mu yóbbu Bercy. ba pare tonnerre dafa dugg parcelle ah dugg dugg duggaat. dafa waay moog laay Pythagore moom ak Paul Maurice kii boo dee wax ñi mu bëreel. moom ak Elton bëreeg ndaanaan yu bëri bokk ci tournoi moom ak Rock Mbalax Moussa Dioum dem te yàlla sax mm. kii ndaanaanu làmb la bu fekkee ne lamb maanaam day am daj dëpp. Ah. tey kii nga taxoon mu féete la droite mooy daj dëpp gi waaye mi ngi dajee xale faat ma doxalal. borom dajee benn paquet. ah mm. mooy mag ah, dañ koy bàyyi nag moom tamit Euh, comme que kon li ma la wax rek temps moom moo amul moom moo tax. ayca tonnerre jege sil micro yi jege sil bisimilah ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di dolli ziar auzu billaahi mina seytaani rajiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si nañ di sant suñu ñaari waajur di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm. Mhm. le 24 yàlla ma yàlla may ndam. si am seen jël bu rëy jël bu amul fenn jël bu kenn mu a gis. laa ko bëgg a dàntal loolu laa ko fas yéene dànt dama koy dànt. Ah, daal ayca bisimilah. ñu ngi lay ziar alhamdulilah bisimilah rahmaani rahiim. jàkkaarloo caméraman yi ñu mën laa gis. ginnaaw bu ñu sant yàlla di nuyu bi di nuyu samay ña gënu suñu ñaari waajur. Mhm. di sant waa parcelle 1 26. di sant waa parcelle 1 26 di nuyu sama mbokk gànjol gànjol sama mbokk waalo waalo yi sama mbokk njaamur njaamur yi di nuyu sama mbokk séeréer si fépp fu ñu nekk. il yi nekk yëpp maa leen di gërëm il de Saloum lépp lay maa leen di gërëm. Ñoojoor Falia Basar Basul Munde. wàcc Samba Dia ñëpp ñëpp nuyu sama mbokk yëpp nekk di nuyu waa parcelle di nuyu waa jàmbaar Wrestling Academy di nuyu waa école Manga di nuyu père Manga bu baax di nuyu père ba di nuyu Mansour Ba di nuyu Mame Gour sama patron di nuyu Papa Gueye Xeer patron xeer de mu ne nga wax ci combat bi jërul jërul dem desal bi amatul luñ ciy wax ndax ndaw la ah, kuy ci lu wax moom la ndaw na daa teel a bëri teel a la de ah moo daan ah si teel a ah. ndaw ah. man mii di xaar gàtt gàtt mag na ma dix ans. kii moo mag kii moo mag sama maam. kii bu muy bëree man xalaatuma teg ngemb may dégg ay samay grand maam biram daan nañ ko mbapat may dégg loolu kon kii ma xalaatuma teg teg ngemb ci làmb. Eh, eh. maa ngi jàng. Ah, nee na soob rek kii dafa baax di wax rek di tudd ay dëkk dëkk yooyu yëpp amul benn njëriñ dimanche maa ngi yow la fii ay dëkk yi ngay tudd nii ay woote yooyu yëpp amul sens. Ah, mais nee na di sóob di wut foo wéeru rek affaire amul wéeruwaay fii si géew bi la. mais daam seet moo daan xam nga looy def da ngay taxaw daam na taxawee nii tak ayca mais daam bu bi si géew bi la amulaay maa ngi ngi woo dëkk bi ah, ah. man wutuma wéeruwaay man du ma xale bu wut wéeruwaay ah. man kese damay takk sama sac dem ci àll bi man kese dem jël làmb ñëwaat kon tey kon tey bu ñëwee ànd ak gaay mi nii ñuy ni man damay defee man mi naa man kese damay takk ngemb takk jël sama sac dug ci àll bi di ko ñàkkante gaay man lamb li ma def ci li simple def ko ci. kii wax nii kii dafa wér. kii li simple dañ ko daan kii wérul. ah kii wérul. kii moom xalaatam lay wax. non day wax nii rek man. kii man ngay laaj man ngay wax bëri ma lay simple. Ah, sëñ bi ah, li ma koy wax du bëri. vingt ah, cinq secondes laa bu ñëw ma jàpp ko ci vingt cinq secondes daan ko ci vingt doole maa ngi xale maa doole maa gën a ñeme lépp lu am laaj maa këpp. vingt cinq secondes li lay sóob waxul dëgg xam naa li mu socciwul moo daam del socci comme baa paase del socci. li del socci ko jox respect quoi a jëloo respect au moins de sëf yi duñu ay xale ay mag ñu seetaan yaa ngi dégg man dama la jox respect kon dama koy ba ma eh, kii damay respecté par force ah. force kii suñu taxoon sama bët force. kii suñu taxoon sama bët force kii day soob kii suñu taxoon maa duma. lan moo xalaat di wax rek. mais tournée gis nañu combat bi Dame Sène nag instant bi dajji beneen eh, paquet. ñeme na la daa dajji paquet de daf laa ñeme. ñeme na la kii du dajji dara. kii du niil du daan du baa. kii du niil du daan kii du ma moromam sax. kii tollu ma fii sax. du bis baa nga xam lépp dëgg la. mais dama koy def. xoolal cameraman dama koy def. lan moo tax ngeen da koy def. li muy bañ laay def. dama koy wane. bu nekk sama. koy def maa la wax nee am na faay de nee am nga faay. waaw man de xëy na loolu moo xam ne man xaw ma ko. li may bañ. moo xam. man mais tonnerre amuloo bañ. déggoo mu la man déggoo mu la ku dee sa bopp laay bañ. ok ku dee boppam. <laughs> Ah. te moom bu du dutee boppam. dafa ëppal day rajax rajaxee. daam seen kii du niil du daan man la wax loolu. gis nga faay ci moom. kii. kii moo gën neex a daan yi. lan la mën moo gën a a daan ci mbër yi xaw ma xaw ma sax lu mu ah. mën a. a neex a daan ci mbër yi. Ah, kon kon xam nañ damay ñëw kon xam nañ damay rajax rajax dama ñëw la ngay laaj moom xam na ne man damay ñëw moom buy nelawaale damay ñëw moom xam na ne man damay ñëw kii ah. kii du dara barki Mouhamed kii su ma ko jàppee hmm. kii lu mu def daanu combat bi daam fan la la toll. ak aussi tamit vingt cinq secondes laa may. vingt cinq secondes vingt may déglu bu baax. ayca ah, naa ko may vingt cinq secondes. bu ñëwul ma jàpp ko ci vingt cinq secondes vingt cinq secondes muy cinquante secondes loolu laa may du ma bëri une minute yeb. mais Mourou Anta Sarr dafa am lu la wax. Ah. nee la kii li fi def yëpp est-ce vingt cinq hmm? secondes yooyu mën nga ko. loolu mi ngi si ginnaaw loolu li mu def mi ngi si ginnaaw mi ngi eh. mu def bàyyi ma ko sa mais est-ce que xam nga combat bi lim fi mu toll sa daam aussi parce que ku bëreeg Moussa Ndoye bëreeg Garga Mbossé Sa Thiès Yékini Junior Paul Maurice Rock Mbalax Moussa Dioum bëree ki ndaanaan yu bëri ngay xale prouvé ñu jox la ko est que xam nga combat fi mu la mën a yóbbu daam. lamb moom lamb la rek lamb mënut a passé lamb seen adversaire rek comme yéen adversaire bi doon bëri man lamb ñu ñun solo ko am la ñuy entraîné quoi lu ñuy wax combattant lañu ay sportif la yow combattant lañu def. bis day jot nga nii da li nga ciy def li nga ci war a doxee li nga ciy doxee doxee ci loolu. dina gaaw. loolu nga laaj vingt cinq secondes. dama koy bàyyi wax ji moom nee na xale la te xale de foo fekk xale day mën wax dama koy bàyyi wax ji ba bis ba man jëf laa mënee man bis ba laay jëf mais lan lañ mën a xaaral ci tonnerre parce que gis nañ tamit tonnerre xale ngay bëri te léegi làmb dafa am fu mu toll gis nañ ni booy macha allah léegi moo daan tax mhm. ñi ngi def seen seen jaloore tey jëlal kii du risque tamit ci yow tamit. non man amul benn mbër bu nekk risque si man ku ma xam-xam ne xam ne benn mbër du nekk man te benn bis musuma dépassé te benn bis du ma jaaxal. mais lan moo tax nga jóge ci Tidiane Faye jóge ci Laye Pythagore choisir kii tamit. parce que na nanguñ maa jël te moom soxla na ma ma jël ko. ma jël ko mais du yàq sama yoon dara dama koy faxas dama jàll. kii dama koy faxas ak jàll. da a des parcelle pour la fa xewoon. dama fay des di fa des di fa des ba doyal doo génn. kii noppee naa dugg parcelle. kii noppee naa dugg parcelle. doo dafa dugg. kii noppee naa dugg parcelle. yàgg na faa dugg de. yàgg na maa dugg. waaw ndax tamit ak i duggoom. kay mhm. dugg na fa ñaata la fa génne. mais pater yi lan la. kii coow nekk di bëri rek mais maa si géew fu ma nekk tonnerre yemul fii fala ma yem. am am naa fayda goo xam ne fu ma nekk tonnerre yemul fii ma yem. tamit li ma lay wax ci ma nekk. Ah, am naa fayda goo xam ne fu ma nekk tonnerre yemul fii fala ma yem. tala 24 incha allah dina leer. xam naa dama may xarit ñuy théâtre loolu moo tax ngay wax nii naan nii naan. Ah. man ku ma naan ci géew bi fii nga may yem dafa am wala nga mus a gis yow euh, déggoo ma bu jur ba du niil doo niil doo daan waaw. Fallou Ndiaye suñu joxoon ndigal léegi fii naal daan fii ñaari yoon yi waaw. ah yéen fekk ma ci biir léegi déedéet. yow doo yem yow doo yem. sëñ bi sànqal maa ngi dégg mu naan niil. la génnee waxu niil boobu man du ma xale buy niil loolu nag diggee na ci boppam bi du ma ko bàyyi muy niil man may xale di niil. ayca ah. maa ngi woote de Modou Mbène di woo Tafa Marina ah, di woo waa Yëmbal yëpp ñi nga xam ne si war a jàpp yëpp ñu jàpp si Ibou Diagne monsieur le maire comprendre nga Tafa Marina grand soirée gars yëpp maa ngi leen di woo ñoo jàpp si bis bi mobilise euh, yokk mobilisation bi. Ah. Euh, jàpp lañu si car rek regroupement yi ñu teel ñëw jàpp waa ji defal ko affaire daan ko jël bu rëy. ayca ah. daam seet. ayca daam waaw di sant yàlla bu baax sant waa parcelle yëpp di ma Masek Lo sama xarit sama frère sama mag dafa may jàppale bu baax gërëm boulangerie Mame Rawaan Ngom Rosso Mame Ngor sama patron Père Mbartin Pawis Wagay Bamba El Capo Tafa Cissé Ibrahima Diaw responsable Abdou Fass sëñ Mor Fall sëñ Fall Sa Touba Samba Ndour As Gawane Wari Diakara Mansour Ba <laughs> Ibou Gueye Kabou Gueye Papa Gueye Xeer Cheikh Labat Fall borom Pikine Daouda Mbow Moussa Mbow ba Kouyaté jàppal na ma xaalis bëri Habib Gueye international Ambroise borom Asalam Grand Mirine Abdou Tall Am Am Ndaw Cheikh Ndaw <laughs> Cheikh Ndaw borom 26 Abdou Tall Abdou Tall Abdou Xarañ Baye Gueye ngi koy woowaat baax a baax Laye Ndiaye borom camion kër si góor yi borom immeuble Kébé kër waa kër champion ba club Almadi maa ngi gërëm ñëpp. Petit Dia Zo Dia monsieur le maire de Parcelles Assainies El Hadj El Hadj El Hadj Kébé Jamil Sané di ko waat baax ñi si saxo sa président fan club waaw sama gars yi ma àndal nii loxo loxo baara idi maa sa sama grand di ko bëgg bu baax Nabi Nabi Diatta si waa café gi open presse le vingt la incha maa ngi woo ñëpp waa parcelle nañ génn sama koñ fi daan amee comme dab ah. ndax du bàyyi yoonam dama koy def maa leen wax loolu xam nañ foofu open presse bi tonnerre non man moom xam naa jeudi wala vendredi jeudi wala vendredi incha allah léegi ah. lu ci mënta ah, eh. ñu joxante loxo gaay am tegante leen loxo kon teg leen ci micro yi. dama jox la force bi lamb. waaw taxaw na ma moo daan a pare. li ngay jaay amul. dinañ ko daamul. xoolal caméra xoolal caméra yi. daam xoolal caméra bi. acca. Nice.